Coupe d'Afrique bi ñun Sénégal ñoo ko téye. ñoo ko téye te koo gaaw a bàyyi. dëgg la lu wér. waaye yéen ñu mel ni yéen am fii. doo ñu tëjal suñu camp ci Côte d'Ivoire kenn duñu dugal mën nga loolu yow. loolu yow mën na seex mën ngaa tëj camp Sénégal ba kenn duñu dugal. barki alxuraan man déggoo ma seex lépp lu jëm ci xëccoo aw ma si morom seex. ci réew mii lu jëm ci xëccoo yàlla xam na ne aw ma si morom moo xam kayit la moo xam ah, ngeen lum ci. kub la wala la kub la wala marche booy xëccoo wala mel noonu demul dem amul dem ma ñëw waaw. Mara Côte d'Ivoire gée ñu équipe nationale Sénégal di dem. Hmm. yow mën ngaa jox loo xam ne Mendy nga koy jox euh, Mendy mooy suñu góol bi. Hmm. nga ne bu ko sampee ci digg camp yi. Hmm. bal du fa dugg non non du ko da koy takk rek. moom moo koy takk moom ku góol. waaw jeex na ci digg li kenn du ko dugal kenn ko dugal. mu ngi ci bu ngeen du ko dugal c'est fini. maanaam loolu sax même boo ko joxee sax mu yóbbu seen club bi tamit kenn du ko dugal. kenn du ko dugal man maa loolu. man Cheikh. mais Maram yow li nga dafa dafa doy ah, li nga wax nii. Cheikh man kay man du waxantu ay caaxaan. Maram doo ma ko jox man ma dem góolu ji. waaw ah, bisimilah waaw <laughs> ah, man Cheikh dëggoo ma de man bañ naa ko. Maram jox ma loolu ma dem góolu ji Madrid man kay ma kenn dugalul maa fi man weddi dama nga seetaan ñi boo gisee ñu dugal leen benn bii bu fekk teg seen premier match te premier match bi ñaanu ma si. match yu des yëpp ñaan amu dama ma ñëw ba ñun jëlee ko bi bii dugut laa la wax te benn prib dip commencement damay dugal. waaw yow da dugal te tegelu kenn dugal te kenn dugal man moom amul sax dama ñëw noo xam-xam am na xam nga ndeysaan amoon naa benn paa hmm. yàlla na ko yàlla yërëm ñii moom maa ngi leen nuyu di ziar mosu ñoo jël coupe ñu ngi soog a jël coupe ndeysaan moo tax paa bi ma lay wax nii hmm. bu lay ñaanal dana la ah demal man day xaw ma ndax dinañ la dugal dix xaw ma ndax di nga dugal cent waaye yow boo gañewul match bi mhm. ma jaxas déggul olof bu leer waaw nee na pël la mhm. daa yow moom boo gañewul rek ma jaxas ma jaxas maanaam day jaxase match bi du àgg kon nag ñun Sénégal te ñu leen a ndamoo xam-xam am na fi de ñii nga xam ne mosuñoo jël coupe mhm. yow nga fexe ba ñu jël coupe ngal la bul xaar fédération parce que sénégalais nga da ngaa war a participer ci réew mi tey Sénégal bu jëlaatee Coupe d'Afrique xolu Sénégalais lu ñuy seddee. mu wóor la ne ne participer nga ci rek. ay milliards la. fédération dama leen di comprendre. li nekk seen bopp bi bëri na. fu ñu toll ñu ngi ci organisation ba. fu ñu toll ñu ngi ci ña war a dem. ñi nga ca hôtel ya. ñi nga ci billet d'avion yi. ñi ngi ci restauration bi. ñu ngi ci tëddën bi. lépp ñu ngi ci ñu ngi ci sëriñ si. Mhm. waaye tey ku mel ni Cheikh Hakim xale bu ndaw. seen xel mën naa bañ a dem ci ñoom. Hmm, jamono ji sax mën na am sax ñu seetaan émission bi comme mën nañ koo bañ a seetaan it. Hmm. waaye émission bi nag Sénégal yëpp koy seetaan. waaw ñëpp koy seetaan moom. bu ñu ñëwul ci yow. Hmm. ngalla soo mënee dem ci ñoom demal. soo mënul ci ñoom defal. man boo ma ko joxee billaahi naa ko jox meen dina ko takkal sa ndigite te da koy takk. dëgg la nañu gañewaat coupe bi marabu lan nga ñu mën a garanti ci loolu. waaw mu neex de waaw non man. di ñu garanti de man man wàllu Sénégal. kaa mbaax la xaar xaaruma si nit dugal ma ci nga ñàkk ma cee dugal. waaw ndax loolu mooy lu ñëpp bokk la. très lu ñëpp bokk la lu ma si gis dama si wax. très bien lu baax bu fekkee safaan. Mhm. damay génne ay sarax ñaan loolu safaan bañ a am. Mhm. moo xam fu mu mën di doon ci senegal mbir mhm. bopp nit ki nit ki carrément kenn nit sama yoon ma mën na cee bañ a nekk ndax xaw ma bu fekkee xaw ma colluwaayam du ma si lii waa équipe nationale. wala réew mi dëgg yàlla seex lu ma ci gis dama si xar sama tànk te boy ndax lu waa ji waxoon booy ñaan ah, mucc ci gaal yow kese amul sens da ngay ñaan mooy na suñ gaal gi mucc ñun ñëpp mm-hmm. waaw loolu mooy libi waaye waaye équipe nationale bu Sénégal mm. man nit contacté ma ak ñàkk maa contacté ma dama siy jàpp waaw dama siy jàpp ci yow boo leen jotul sax man mm-hmm. man ba ma joxee loolu man man man bu kenn dugal suñu camp rek <laughs> parce que man bu ñu dugalee man man ni may ni may meree sabotation ni mu yéegee loolu yow boo ma ko teggalee rek yàllaa lay fay man jox ma jox ma fas wi rek man bu teggee sama loxo fas wi billaahi dina takku ci ndig mendi yabu ma yabu ñu sax nag dina ko takk de non loolu dina ko takk de am njaago la xam na ko hmm, xam na lañuy ñuy takk xam ne loolu waaw loolu amu sax dama ñëw loolu ay tànk ginaar la ak ah? morso gumba tànk ginaar ak morso gumba hmm. kenn du gis kaa yi <laughs> ak yeneen sax bëgguma ko nettali sax bi astaghfirullah allahu akbar yeneen yu yéeme barki alquran karim yu yéeme yoo xam ne fii ba suba bal dugg góol ba koy takk rek ci ndigal bal dugg bal dugg amul dama ñëw waaw yooyu nag ay wàllu raw xaan la yoo xam day teekaa yi mooy te dugal biilu ndaw la benn sarax bu ndaw cent franc lay tollool waaw <laughs> ah barki alquran arbitre bi sifle da ngay dagg rek saraxa ko ñaar personne jeex na ñu dugal moom kay 15 minutes njëkk bii day dugg. Ah euh, kii euh, kan mooy président fédération sénégalaise de football El Hadj Diouf maa ngi ak numéro mm-hmm. man dinaa ko woo moom. Mm-hmm. moom moom mi ngi ci fédération bi. Mm-hmm. moom dinaa ko woo moom dina ñëw moom. incha allahu rabbi parce que li ngay wax nii. février dafa ñëw. Euh, janvier la ñu nekk ñu janvier coupe d'Afrique bi c'est bientôt. donc bu ñu jugee ci football. Mara waxuma la da nga wax ay révélation man duma la ko wax loo. waaye Sénégal ñu ngi jëm ci février élection présidentielle mi ngi ñëw mm-hmm. ah ba fu ñu toll nii nag coow li bëri na de mm-hmm. parrainage ak kii dina jàll mm-hmm. kii du jàll Sonko dina bokk Sonko du bokk élection dina am élection du am Sénat bi ñu daane yóbbu leen Cour suprême bu Cour suprême joxe Sénat ndam élection du am ndax Sénat amul tama war a arbitré yu bëri am na fii maanaam yéen da ngeen a sell mm-hmm. yéen am ngeen baatin mm-hmm. même boo ko seetul